aousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokk internet yi maa ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di ñëw di waxtaanee ci affaire violence fait aux femmes mooy ne bundu xatal yi nga xam ne moom lañu ñu bundu xatal jigéen ñi ci seen biir kër ci seen liggéeykaay ak fu mu munta doon daal ndax góor ñi tey jii soxor nañu siis nañu iñaan nañu xamuñu valeur yu jigéen ndax damaa yaakaar ne yow góor suñu jëlee safaaru càmmoñ bii nga xamante ne moo gën a làqu ci sa poqataan ñu génnee fa jigéen kon kooku ku jara sàmm la waaye yow doo jàpp jigéen boobu noonu sàmmloo ko yiiruloo ko loolu nga di ko bunduxataan di ko dóor di ko toroxal te jigéen boobu noonu la di la toggal di la fóotal di la raxasal di la jural ay doom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a tax sa sant daal di law ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a tax yow sa borom taxaw gërëm la ndax suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku gën ci yéen mooy góor bu gën ci njabootam te moom Muhammad sallallahu alayhi wa moo gën ci njabootam kon di góor ñi nañ ko roy waaye góoru tey jii roy ñu Muhammad sallallahu alayhi te ñu ne ay jullit la ñu quatre-vingt-quinze pour cent des sénégalais jullit est-ce que ñun ñu ngi def yëfi jullit. ñu ngi roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon góor ñi war nañu xawtaat seen bopp bu baax ndax suñu maam yi loolu lañ doon def ak suñu yaay yi suñ ko doon def est-ce que tey jii danañ fi egsi fuñ fi war a egsi kon nañu daal di dellusiwaat suñu xel yi te jéem a xool suñu maam yi naka lañ daan def nga xamante ne da ngay gis góor goo xam ne dafa doon am ñeenti jabar ñëpp nekk benn ëtt. waaye doo ci gis xuloo doo ci gis xeex lépp da ko doon maîtriser doo xam kii mooy doomi kan doo xam kii mooy doomi kan waaye jamonoy tëj yi benn góor kese ak jabaram fitna suba fitna guddi fitna bëccëg loolu ba kañ pour lan maîtrise boobu noonu la góor ñi mënatuñu ko am ci seen jigéen yow nga ne dangaa dem jël jigéen bi dem ba këram joxe can loo xam ne moom moo lay lew ci moom nga indi ko sa kër war a am yërmaande ci moom amatuloo yërmaandeem lu du nga di ko bund mu di la jural say doom doo ko jox li war ci moom te pourtant l'islam dafa wax ne yow jigéen bi nga xamante ne yaay nàmpal doom bi góor gi dalaa war a fay pour nga nàmpal doomam dëgg la doom bi yow yaa ko ëmb waaye suñu góor yi fii ana kan moo fii fay jabaram pour mu nàmpal doomam amul kenn ku fii fay pour mon nampal dom même su fi amé dañ koy daldi bind par ben ben ni fi fay ni fi fay sen dañ di ko fukki gor yo ci gis ben mom mo fi fay jabaram pour mu nampal domam te lolu warul te pourtant ay julit lañu lolu war nañ ko jang ne jigen suy nampal dañ ko wara fay la muy nampalé waye Sénégal xamuñu lolu yow fayatuloo sa jabar lu muy nàmpal sa doom waaye nga di ko bunduxataal doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan doo ko jox mu solu pourtant dañ la wax ne dëkkal ko dëkkoo ko su raflee nga jox ko mu waddu su maree nga jox ko mu naan loo lekk loolu la war a lekk loo naan loolu la war a naan waaye am na góor yoo xamante ne dañuy dem ci biti di fa jaay jomba ñaaw te suñu ñëwee seen kër ga nekk fa ay gaynde est-ce que noonu la war a demee kër daa war a nekk warut a nekk un terrain de euh, euh, boxe waaye kër dafa war a nekk loo xam ne apaisement lay doon ci biir famille mu ci ku góor ki muy ci ki jigéen ki fitna boo am ci biti soo ñëwee sa kër danga war a dem foofu noonu bànneex waaye soo ñëwee ak sa fitna doo xam nooy maîtriser woo jël fitna ba yóbbu ko ci sa jabar bu boobaa musiba daal di am ndax maîtrise de soi la ñu amatul te nit ki da nga war a am maîtrise de soi góor ñi delloo si leen seen xel ngeen am yërmande ci jigéen ñi violence bi doy na violence bi doy na ne jigéen bu nekk na nga jël sa xol dolli ci muñ ndax foo dégg muñ rek dafa métti su méttiwulee kenn la wax muñal waaye nañu delloosiwaat suñu xel daal di ko yóbbuwaat ci yàlla nañu saxoo di def ay astafirulaa yu bari ndax dañ koy fàtte na ñun ay jullit lañu te astafirulaa du jéggalu kese de mais astafirulaa pour apaisement xol da cay nekk nañu jéem di comprendre suñu góor yi loolu ma koy yeddee jigéen ñi tamit waaye góor yi xam leen ne seen yaay jigéen la seeni ay sœur jigéen lañu di yàlla dina la may ay doomi jigéen est-ce que doom yooyu noonu suñ ko toroxalee comme ni ngay toroxalee doomu jàmbur dina baax ci yow wala dina neex ci sa xol kon nañ dellusiwaat xol yi waaye nañ dellusiwaat xol yi dellusiwaat xel yi te jéem a maîtriser suñu ay euh, suñu ay battement ah suñu ay émotion nañ koy jéem a maîtriser nañu indiwaat harmonie ci biir kër yi te bañ indi violence ci biir kër yi. ñàkk jàng diine dem ca la bokk parce que dëgg la tubaab yi am na lu ñu fi indil ci affaire violence. ci affaire euh, pour ñàkk bañ a violer jigéen soo ko violer nuñ la war a daan ay yooyu noonu waaye man damaa wax ne balaa ñu daan yooyu noonu la est-ce que duñu delluwaat xool ñun suñu diine bi nga xam ne moom la ñu yàlla tracé lan la yàlla wax ci jigéen ak ci góor parce que damaa foog ne nit suñu toppee diine muy ku góor muy ku jigéen kon violence balaa muy am ndaxte l'islam dalaa wax ne balaa violence balaa dóor di am am na luy njëkke wax dana fi am nga boole ji ñu daal di wax ak moom dana fi am ñu ne la nga gedd lalam dana fi am nga gedd lekkam dana fi am jigéen lu mu dëgër fit dëgër fit dëgër fit doo gedd lekkam wala nga di ko jox dépense nga gedd lekkam wala nga gedd lalam mu continuer di mel ni mu mel il faut mu changer kon loolu yëpp balaa violence di am jaar leen foofu noonu ba pare te violence su naree am waxuñu leen ne pour ngeen jàpp ngeen dóore kur feñ dóor dooleem daa xet ci dara góor yàllaa ko may kàttan kon nañ dellusiwaat suñu xel waaye te delluwaat ci li nga xamante ne loolu mooy suñu diine lu ñu jàngal ci diggante ñaari nit yi waaye dencante suñu diine jàngal nañu de bàyyiwul dara de waaye ñun ñoo bàyyi suñu diine bëgg a dem ci beneen diine kon soo demee ci beneen diine la mu indi rek loolu la ñu daal di eh, eh, def te suñu gouvernement yi fii dañu wax ne dañu protéger jigéen ñi waaye pour man protection jigéen ñi des na ndax suñ doon protéger jigéen ñi kon foog naa violation yu bëri du mun a am ndax violation yi ci jigéen ñi bëri na waaye gis déggaguñu kenn benn autorité mu wax ci ndax ki dem moo njaay rek wax nañ ko fii nii koo xam ne jëkkëram rey na ko ba pare te dara jënu fa ba a menacé ki nga xamante ne moom moo ci war a wax pour naan ne ku ci wax ci loolu noonu rek di nga dee mel ni dee moom ci seen loxo la nekk mais dee ci loxo yàlla nekk kon damaa fa ne gouvernement bi war na cee jóg moom itamit mu def ci part responsabilité bi nga xam ne moom la ci am mu wax ci ndax xam naa ne bu dul loolu moom ah jigéen tamit yàlla may na ko fit boo xamante ne bés bu fippoo rek moom dina garaaw de bu boobaa ñu daal ne jigéen ñooy def violence fekk na violence ñoom ñoo tax ba jigéen ñi indi ko kon jóg leen ngeen wax ci balaa violence jigéen ñi di jóg ndax violence jigéen ñi bës bu ñëwee ah bu boobaa nag moom. danañ wax ni xanaa kay déet te fekk na yéen a ko def kon balaa caa yéen gouvernement bi yéen suñu góor yi xool leen seen bopp gouvernement bi wax leen ci parent yi nañ ci jóg wax kilifa diine yi nañ ci jóg wax képp koo xam ne war nga cee wax ba nga xam ne soo waxee rek dara apaisement mun na cee am rek jógal nga wax ci ndax fu mu nekk nii seytaane ëpp nañu doole bàyyi nañu seytaane mu dugg ci suñu biir ba xamatuñu lan la ñu war a def jaxasu nañoo ak seytaane ba xàmmeetuñu lu baax ak lu bon kon nañ delloo si xel yi waay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.